asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ah jeudi 17 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey dooleete ko yëglikaay ba nag tey moom ka mu xëy séqal waxtaan mooy Pape Thialis Faye ginnaaw nag coow li nga xam ne fan yi jóg na ci diggante waa kër Tapha Tine maanaam ña ko yore di ko entraîné bokk na ca Mbaye Ndewane ak écurie ba nga xam ne nii ñoo ko entouré ak it ka nga xam ne moo dem ensemble di Elas Thioune bu ñuy waxee na amee lu ñu Pape Thialis Faye combat ña ca des di ensemble moom jàpp na la mu signé signé na ko te bëre danañ ko def ak Boy Niang mu mel ni ki moo jóg ci yëglikaay yi sunu làmb na tey nag mu xëy seqaat ci waxtaan ak Pape Thialis fay ka nga xam ne nag moo di Pape Thialis moom la muy dëggal di ko wax daal nee na li am ba des daal ku yebu wax lu la neex nee na mu ngi dégg at mu ngi dékku attaque yëpp waaye li am ba des daal moom jàpp na ne nag booy ñang bu soobee sunu borom day am moom dana ko def Thialis kay nee na leneen la ñuy wax waaye lu dul loolu nee na nag ña cay wax moom naan dañuy bëre wala du ñu bëre nee na ñooñu moom amut lu mu war a wax ak ñoom parce que nag si ñëwul ak ñoom kayit séqul ak ñoom moo tax ba jàpp na ne moom leen tontu wala mu leen di wax ne leen lii la wala lii la lu ci neex waaye daal wax ko waaye moom la mu signé ak kam ko signeel xam nañu ko te jàpp nañ ne combat moom danañ ko bëre wala boog ñoom ma waxe ka nga xam ne moo ni ki nag mbay tamit mooy nijaay Tafatine di ab entraîneur te fan yi mu génnoon jàpp na ñoom ameelatuñ combat wala boog ultimatum lañ doon jox pap calis fay moom itam génn tey de daal di wax jàpp na ne daal situation fi mu nii daa ni moom des na ko décanté wala décanté wu maanaam mbir yi boog mu ngay ñëw caw yoon di jaar nañ ko soxlaa ñoom ma moom ma nga xam ne moo waxoon keneen koo xam ne nii ba tey coow la soriwu ko bala ca coow la ñuy des ndax burxaan wadd mayore booy ñang di ab mënaan seen moom la mu xëy xamle nee na mbërëm day coow la du ci bokk tey suba waxi noppi ndax la tax jàpp na ne moom mbërëm a ngay préparé combat ba te jàpp nañ ne ñoom combat ba danañu ko bëree Burkhane Wade daal loolu la xëy tey wax ndax nag dana la mu signé moom signé na ko promoteur ba te lu leer naññ la nee la ca des nag moom mbirum bi néeg ñoom ko seet tey itam nekkul loo xam ne ni lu ñuy wane la ci biti wala nangam sàngam waaye bëree moom ñu danañ ko def loolu la Burkhane wax la mu xam le net bit moom Burkhane daal di ko yokku ca wax ja nee na ñi nga xam ne ñooy ay supporteurs booy ñang daal nee na leen su ngeen yeboo yéen ngeen préparé wu jatu ni ab te xam ne seen mbër moom signé na combat ak tafaatin ak léwtoo te bu soobee yàlla da koy bëre loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moom moo di Burkhane Wade ba tey bu ñu continuer ci loo xam ne nii wala beneen écrit boo xam ne nii mu nga ca banlieue ba ñu koy wax lan saar ak seen mbër yi nga xam ne day suñu làmb jàpp na ne day mission la ñu amee maanaam mission bu méttee métti moo leen di xaar ka ca njëkk mooy nga xam ne nii ku mu war a jàkkaar mooy Papa Sow bu parcelle muy boo xam ne day bu a tar lay doon ci moom xam ne nii moom moo di Quench tamit ku ne xam ne ne double moteur bu rëbës la war a jàmmaar lool muy beneen combat boo xam ne bu metti la nar a doon nekku kuréel tamit mu mel ni moom tamit am na combat boo xam ne daal bu nar a metti la nar a bëree moom nee kuréel tamit am na combat bokk ci mbiri lansaar yi nga xam ne nii yu war a wàcc lañu moom marle bu géejowaay la fas yéenee jàkkaar lool maama lamin tamit ma nga xam ne ni ba tey foofu la nekk ca lansaar moom itam am na combat ak ka nga xam ne moo di garg bu parcelle moo tax sunu làmb jàpp ne ndey soo bëggee dégg dëgg moom mission commando la ñi nga xam ne ñoo di waa lansaar daal di gàddu fas ko yéene bëre leneen loo xam ne nii moom ñëwal ci yëglikaay bi ba tey moom mu fekk ko fa buñ fa demee naal maanaam mbirum bangub CNC bi maanaam daal ka war a jiite lamb ji ginnaaw bu Alioune Sarr demee mel ni ki nag amateurs yi moom joxe nañ ca seen kàddu ci gëstu boo xam ne nii Mamadou Lamine Ndiaye moo ko def maanaam dégg leen micro mu mel ni ki nag ñoom ñëpp boo xoolee ñi ca wax daal ka ñu tànn wala ñu cëpp ka ñu votel mooy Mouhamed Ndao tey seen daal la jàpp ne moom war na mën a jiite ji ñoom ñëpp daal xalaat booba la ñu xëy ngi moom nekk fa nga xam ne nii moo di ceekri faas wala boog daan ànd ak Tafa Gueye ak Mbaye Gueye la mu xëy xam ne daal moom Moussa Gningue nee na li am ba des daal mu xamul Tyson lay doon wala keneen ku muy manti doon la mu jàpp daal ne na ki war a jiite lamb moom militant wu la war a koo xam ne daal lamb jaral na ko lool lool nee na ku mel daal moo war a mën a jiite lamb ji loolu mooy gis-gisu ka nga xam ne nii moom moo di Moussa Gningue ba tey bu ñu continuer feneen foo xam ne nii moom dañuy génn dakaar dem fa nga xam ne mooy région de ci Thiès ak équipe ba nga xam ne mooy bëgg sa waajur loolu nag moom wala ñañ fay fekk daal ñooy ñoom ambulance ak mu ba écrim ba nag yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg daal daa mel ni moom terrain ba xaw nañ koo ñàkk de ndax nag la ñu am ci victoire ñeent la ay défaite ñaar mu mel ni bëriwuñuy combat te itam bëriwuñu ay victoire defet tamit am nañ te ñaar ambulance mooy tête de file ba nag moom ne fi mu nekk nii boo bëggee dégg dëgg daal daa mel ni oto ba doxatul wala ambulance ba pan daal la def Alaaji Gaynde tamit ñëw nañ ci moom ak na nga xam ne nii noonu la taxawee waaye ka nga xam ne nii mooy ngunda ngeej booy pullo ak ki nga xam ne mooy sétéwoo ak jogoo ñoom daal fëgg nañ bu baax a baax a baax ñoom wane nañ seen bopp Ablaye Ndiaye daal mooy coach suba itam ñëw na di wax ci résultat yi nga xam ne ni moom la bëgg sa am loolu yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw wax nu ko ba tey bu ñu continuer fa nga xam ne nii moo di record fa la ñuy dem record nag moom Abdou Badji lan fay fekk moom mi nga xam ne nekkoon na fi directeur technique national Abdou Badji daal la mu xëy di wax wala que mu xëy dal ci koom mooy président ba nga xam ne nii moom moo jiite li nga xam ne nii mooy confédération africaine de lutte africaine ba di ab marocain daal moom la Abdou Badji xë tey dal ci koom lam ko xamal nag moom nee na nga xam ne moo di wàllum lutte africain intéressé wu ko tey suba waxi noppi Abdou Badji daal kooku la xëy tey wax ay dëggam yemu ca tamit ñëw na ci yeneen mbir yoo xam ne ni wax na ko maanaam suñu athlètes yi nga xam ne bu ñu duggee ci lutte olympique bi wane seen bopp am ay médailles ak lutte africain bi maanaam daal maanaam ñoom ci seen bopp fu ñuy mujjee mooy ay jafe-jafe dara du leen ca toppe yooyu yëpp Abdou Badji seet na ko tey ak waxtaan ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record suur suba nag nañ ki nga xam ne ni mooy afrique point com moo ko andi leneen loo xam ne nii du mu ko sori wala mbir mooma ba tey jege na ko muy Anta Samb ba tey ci record moom nag la mu xëy di xam ne daal maanaam la nga xam ne def na ko ca Maroc waroon fa am ñaar fukki an ca ñaar fukki fan ci ab stage dem ba am lu toll ci ñetti weer moom Anta Samb nag xëy na tey ñëw di wax maanaam daal la nga xam ne ni loolu la jot a dund nee na nag ba mbir ma ñëwee moom di pandémie bi tëj leen fa nee na amuñoon problème ku ci nekk amoon nga sa màkkaan moo dëkke di sa néeg te itam yàlla ñëwaat moom itam ma ngay wax la nga xam ne ni daal moom la namm ci li nga xam ne nii moom mooy jeux yi ñu nga xam ne moom la a jëm maanaam daal médaille la fa bëgg moom Anta Samb bokku ca daal wana fa boppam xam ne tamit wax na ko mooy tapis ba nga xam ne moom la ñuy tàggatoo te muy benn fa nga xam ne nii moom moo di ci réew mi nekk Léopold Senghor te boobu ba tey ñu tëj ko moo tax nag ne na moom këram daal lay toog di fa yëngal la nga xam ne moo di yaramam ngir nag di maintien forme ba ngir bañ koo perte moom ma nga xam ne nag ba tey mu nga INSEPS di sàkku am xam-xamam daal moom Anta Samb loolu la xëy wax waaye tey li nga xam ne ni moom laay xëy wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muy ki nga xam ne ni mooy Ibrahima Faye Beuz buñ ko waxee nag kooku mooy borom Lutte TV kooku nag moo ñàkk way juróom bu góor démb ca la nga xam ne ni mooy àllarba ja ñu denc ko fa nga xam ne moo di yof moo tax ñu ngi koy jaale képp koo xam ne nii daal ci askanu làmb nga bokk waaye nag jiital ci Ibrahima fay bés bi nga xam ne bu ñu déggee Babacar ginnaaw yàlla ak yonent bi moo tax ndax nag maar ku ngay tax boo goree ne ko yaa tax may tax te ku ma dégg tey ci micro may wax ginnaaw yàlla Ibrahima fay bés la kon sunu baay boobu ma xamoon ko lool mu nekkoon waajur bu baax mënoon njaboot lool neexoon deret lewet lool yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko di ko jàll askanu làmb rawatina waa Leewtoo waaye tamit Lutte TV nga nga xam ne nii Ibrahima fay Beuz mooy borom. mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee rek dañ leen am asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen fu ci waaye mën a nekk di ñu suivre rek à travers le monde ñu ngi lay bégee waa di bu baax a baax tey nag suñuy kàddu fi ñu koy ubbee moom fenn lay koo xam ne nii maanaam suñu kilifa la lépp la di Ibrahima fay bés bu ñu ko waxee nag moom moom moom mooy borom Lutte TV waaw c'est le PDC kon bés di ko jaale way juróom bi nga xam ne da ko ñàkk dem ñu ko doon wooyee Pape Ndiouk fay ñu ngi ko koy jaal di ko jaar groupe bi yépp xam nga parce que li tax mooy Lutte TV fa lañ dooree yaa ngi dégg te euh, dafa am lu nga xam ne nii ku gërëmul yàlla doo gërëm nit te bés saa fu ma toll ak fu ma mënti nekk rek dama koy ñaanal jàmm di ko ñaan di ko gërëm parce que li tax mooy buñ ma déggee rek ginnaaw yàlla moom bés moo tax kon maa ngi koy jaale wayjuram boobu di suñu wayjur nekkoon góor gu lewet ñu xamoon ko bu baax a baax ndax lit TV bañ koy demaare ca kër ga lañ nekkoon daan fa liggéey te mosuñu fa am benn problème papa ay bés nekk ku baax yaayam aussitôt noonu di ko jaale tamit yaayam di ko jaale paa bi bu baax a baax di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana nekkoon kilifa gu mën njabootam ndax nekk nañ ca kër ga lu yàgg a yàgg a yàgg te mosuñu fa am benn problème kon góor gi yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana bés nag di wax ne waa làmb wala làmb ci boppam sax amee nañ ko njukkal ndax li tax mooy am na lu bëri lu mu indi lu mu yokk ci làmb wàllum site internet na nañ def làmb lu mel ni Sénégal suñu grand bourgé la ay Dakaractu mais xëy na grand combat bi moo leen doon intéressé mais Lutte TV nag bi mu ñëwee lu bees yaa ngi dégg gëmuñu woon ko mais après ñu nekk ci di ci liggéey ba tey gis nga mbir yi saawan na baawaan kon bés am na méritu làmb ñu det ne mu ñëw indi pay ci làmb loo xam ne woon mënta ne mu fexe ba tey defe naa ne bokk na ci tey loo xam ne am na promoteur yu ko def yoo xam ne duñ ne la pay per view baaxul ndax ndimbali na leen kon bés moomu defe naa bu ñàkkee waajuram du ñu mën a def lu jaale ko ñaanal ko yàlla waajuroo yàlla yërëm ko xare ko aljana te mu dëddoo leen jàmm di wax ne bés daal ah mook Babacar waaw soow ak suugar la rek boole naan wala boole tuur te boo ko tuuree da ngay gaañu kese bu keroogee ndax li tax mooy liggéey la ñu seqoon même donte tey xëyatuma li TV waaye tey la diggante bi gën a tax di ko ko jaalewaat di ko jaale ñoom Lamine suma rakk ak personnel bi nekk foofu yépp waaw di nuyu tamit ñuy suivre encore une fois di wax nag tey bu ñëwee ci sunu làmb tey ak fi mu xëy génn ci coowal tafaatin Pape Thialis Faye toog jàppal bàyyil mais ni ko Pape Thialis nag xëy na tey wax la mu xam ne nag lenn la nee na combat booy ñag tafaatin dina am wax loolu nag la ñuy ñaan yàlla yàlla na am cali sa wax jooju yàlla na doon dëgg parce que tax ñuy ñaan loolu mooy déclaré nga combat bi wane nga ñaari mbër yi à travers le ñëpp gis leen ñu siiwal combat bi xëy na bu amee ay quelques jafe-jafe jafe yooyu wax yàlla na ko yàlla teggi ba mbir mi mën a continuer combat bi am comme noonu nga ko ñaane yàlla ko waxee waaw di wax ne que nag la tamit mën nañ ci comme ne na tey moom amul ku mu waxal ku dul ka mu signal xam nañ la ñu signé loolu defe naa am solo rek coow li nag pour mën su bëree itam lu mu ci mën a xew doon rek na wax ja rek parce que euh, li tax mooy fa ñuy mujjee moo jaru suuraale bu ñu ñëwee tamit ba tey ci ki nga xam ne ni moom mooy nijaay tafaatin di ndewaan moom tamit wax na moom waxoon na fan yi waaye génn na tey jàpp na ne mën na décanté wu waaw moo tax xam ne daal ah yàlla dañu yàlla jàppale daal mais ñu ngi ñaanal promoteur ku jël la nga sumb yàlla na nga ko mootale ak jàmm bu ñëwee tamit ci mbirum écrit lamsaar ak tey combat yi nga xam ne moom lañ dëgmal yëglikaay bi tuddee ko mission commando c'est Papa Sow muy combat jàng combat boo xam ne njarndeem la war a doon te ku ne xam na ne foofu combat bu nar a metti lay doon Pape du Fall moo fa jaar ñu koy nuyu di ko ziar ñu ne déet na waaye Lansar ba tey Quench dugul moteur foofu cam production Baba Diaw muy combat boo xam ne tamit ah lu doy waar la diggante Quench ak double moteur muy combat bu nar a neex bu nar a roqe boobu combat ñu déet na waaye Mama Lamine Garga 2 foofu tamit nga gis Mama Lamine ak dynamique bi mu ne yaa ngi dégg Garga 2 ñu ne woon fii du place ñu boole leen ah Vox Arena jaar foofu wala muy combat boo xam ne bi bu waaw ñuy ñaan yàlla fekke ko te tal ko ñu dégg ne waay ñi nga xam ne ñoom ñooy Pape Sarr indi ka nga xam ne nii mooy Marley ak ka nga xam ne mooy nekkuréel muy combat bu doy waar mu mel ni kon Lansar ah wax dëgg yàlla am nañ mérite parce que tey la fa ne ci mbiri grand combat yu bëri ay millions bëri na macha allah te lool li ko waral mooy liggéey kon liggéey moo gën a wóor ñu ciy nuyu suñu père Max Mbargane ak père Aline Diop ak staffu bi yépp fëgg la ku xam ne ne tamit am na combat digganteem ak Euh, armée bu benn baraak muy Lansar daal macha allah daal loolu lañ leen di wax bangub CNC bi wala boog bangub taw Alioune Sarr bi nga xam dañ ne day dem ku koy jël amateur yi moom ci suñu lamb bu ñu gisee la ñu wax mooy bu doon vote la ñoom voteel nañu Tyson ñoom loolu la ñu def. loolu nag am nañ si droit pata sama gënal ñaam bi damaan kuñ ci tëj sa avocat daa baaxul ñu déet ne waay Moussa Gningue moom la mu xamle mooy kii jël place Alioune Sarr ëllëg na doon militant wu làmb koo xam ne làmb jaral na ko ñun nag loolu la ñuy ñaan yàlla na doon koo xam ne làmb dina ko jaral bëgg sa way jur bu Thiès bu ñu demee seen résultat ren 4 victoires 2 défaites bu ñu ne bëgg sa way jur nag ambulance bu Thiès ku ne xam na ko mu yëkkati boo xam ne yàggul mi ñu ngi góorgóorlu ambulance nag ay biram xaw na taxaw mais ñu koy wax rek mu gën a góorgóorlu moo xale ya nga xam ne nañ leen ñoom alaaji gaynde xale ya fa nekk ñu a liggéey xëcc bu daggul day ñëw olof njaay moo ko léeb record bu ñu fa demee kañ fay fekk mooy suñu confrère Abou Ndour ak tey yoo xam ne andil nañ ko ci ay waxtaan wala loo xam ne daal gis nañ ko mel nii ki nga xam ne mooy Abdou Badji nekkoon directeur technique national xëy tey di wax ak ki nga xam ne ni moom moo jiite lutte africain bi di benn marocain jàpp na ne daal moom lutte africain waaw waaw da maanaam dese na koo daal jox cëram nangam wax yu mel noonu la xëy di wax ak itam suñu athlètes yi nga xam dañuy dem na la war ci ñoom ci leen ko jox loolu nag buñ ciy wax état lañ ciy waxal athlètes yi bu ñu ñëwatee muy équipe nationale léegi fu ñu mën a dem war nañ leen mën a teral jox leen la ñu mérito loolu defe naa ne mooy li war a am réew mi la ñuy défendre Anta Samb ku ne gis na ne moom tamit defoon na fi ay stage sa Maroc waroon fa am 20 jours corona bi ñëw mu far fa tëju def fa 3 mois moo ko mel ni caak fayloon su ma jumulee ñëwaat na ci séjour boobu nga xam ne na ko loo xam ne daal ah waroon ñibbi si am 20 jours far fa def 3 mois mais nag nee newoon nañ ci jàmm mu ngi nekk ba tey INSEPS di continuer ay jàngam di compétir ñu koy ñaanal yàlla mébét ya mu am ci jeux yi mu bëgg dem jeux yi di ñëw yàlla na ko yàlla na fa dem te foofu su fa demee yàlla na fa indee jëlee ay médailles ndax loolu lépp bu keroogee pour Sénégal la champion record moo ñu ko indil tey di ñaanal ñëpp jàmm rek di balu ñëpp ak di nuyuwaat sama confrère yi wala sama sœur yi muy Ndey Kumba Fall Aïssa Faye saa su ne leen di nuyu ndax euh, ñooñu moom xam nga samay nit lañu samay jigéen lañu te ay borom fa ñu nekk di nuyu amateuru làmb yëpp bi ñu ngi leen di nuyu mais di wax mention spéciale Cheikh Bass borom Kër Massar sama xarit di nuyu encore une fois waa Petersen di nuyu yàgg maar caméraman monteur di ko ñaanal jàmm taaliw Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou di nuyu képp ku ñuy suivre rek à travers le monde waaye tamit di wax liiru touché na ma parce que fa mu nekkoon di dox ay soxlaam bañ ko ne papay bës wàññeeku na dafa bàyyi la mu doon def ñëw ànd ak ñun dem yoof ñu jébal góor gi boromam àndaat ak ñun ñëw zone A ñu nekk fa bu mu guddi après mu door a ñibbi kon Lirou Diane tamit loolu nga def lu am am solo la li la nuyu di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy siifut di ñaan jàmm senegal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci àddina bi yëpp